xanaa euh, bu ko rak joxee mag rakk joxaat ko mag rek rak ah, rakk jox na ko mag rakk joxaat ko mag rek ndax daj naa ko fi nekk. ya jëlal ma loolu jëlal ma loolu. wóoy. ndeysaan mag ngi ala ala. ah kaay leen ngeen bokk way wi fari bi naa ko daan jël dëgg dëgg Omar Diobay sa baay sabu sa yaay doomu yaay dem ba ale dundal ba si may di baawaano mami yàlla yokk la dundal duna bama lay murga siif ma tijaani nii toog dama yaayu de aña suma jooyee nga jooy suma reewee nga ree bokk neexul bokk daa metti ndaxte kuma laal ma mi nga dugg sa mbaaju jooy sama rakk ini ngi regu sut ci man rëgg te la ci moom sama suukar baay ak baay waaw rakk ji ñoo bokk benn maam te man ak yow ñoo bokk benn maam bokk yaay ay sama doom ji sama taaw bu jigéen bi sama waay waay waay waay waay sama doom yow rafet juddoom dëgg dëgg yaa rafet juddoom ku ma mën a way way ki nga bokkal dafa neex biir ma tëddoon nga tëdd weer ma nampoon nga namp man ak yow a bokk ma mi yàlla yàlla la fal bu dee gërëmal mag maa ngi lay ñaanal yàlla defal la gudd fan ak